asalaamaaleykum euh, chers internautes yéen ñi nga xamante ni yéen a saxoo seetaan Hann TV tey nag comme ni ñu koy defee ci seen émission xam sa diine ñu ñëwaat rek dalal ki nga xamante ni moo di oustaz Mor Thiam nekk ci RFM waaye itam nekk ci TFM tey ñu war a waxtaan ak moom li nga xamante ni moo di premier dix jours koor lan lañ ci lan la ci euh, jullit bi aajo di def oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal. waaw maa ngi lay fay di nuyu seen internet yëpp yéen waa Hann TV di ñaan ni mu nekkee Hann TV yàlla dem ba nekk Sénégal TV xamante ne bi ñëpp di ko seetaan di ko di ci bàyyi xel macha allah. Euh, bu dee ci question bi mm, xam nga weeru koor wax naa man yi nit ki dafa war a préparer wu psychologiquement pour am benn connexion digganteem ak boroomam euh, boo xamante ni bii du dagg euh, li ñu soxla ci dix jours yu njëkk yi mooy li ñu soxla même ci les dix deuxième dizaine bi dizaine bi ba ci troisième dizaine bi du changé. parce que quand on parle le koor corps, ramadan ramadan sept lettres là. shin ha ra ra mim Bad, alif nun C'est huit lettres alors ce que nous remercier le bon Dieu Nous tax il faut remercier le bon Dieu parce que ñaata nit nga nekk ndooloon ci koor gi passé te tey ji ñu bëri ñu ngi ci biir bàmmeel sant yàlla bi mu la mayee nga fekki parce que ñële seen tuyaa ba na ku ci amul woon doom bu baax ku ci amul woon lu mu doon saraxe ñu koy def ginnaawam ku ci amul woon xam-xam bu mu fi bàyyi woon ku ci gasul woon teen ku deful woon def def def def lu yàlla tuddee li nga xamante ni bii sadaqa jaariya la kooku ay tuyaabaam kuppe na yàlla bàyyi la fi yow ngay dund kon da nga war a jëkk ni di jours yi daal vraiment dama war a sant yàlla parce que may na ma wér ba maa ngi woor mais sant yàlla dellusiwul ci alhamdulillahi rabbil alamin kese sant yàlla action la action bi moy indi nga ni vraiment man dama doon toog du ma lire le Coran kon na jël Coran mu nek sama xarit so xolé nga ni naa jël Coran mu nek sama xarit nga ni chaque jour dina lire deux pages du Coran que nga lire ko ci français mba anglais mba tubaab mba arab ya xam nga ni chaque jour dina jël deux pages ma lire ko ci le Coran comme ni ngay nek jeune.

ñu ñëw ci jàkka naa naafilandoo ak imam bi mais yeneen yi dañ naan oh, man day damaa ndogu lu ëpp comme ñoom Ngouda Sarr ñoom Ndiouga Sarr dañ naan damaa ndogu lu ëpp ba mënumaa julli naa xaar ba ma pare ba doog a julli parce que imam bi ñaar rakka ñaari rakkaa yi imam bi di def moo ëpp doole yow sa ñaari rakkaa pourquoi parce que yaak mbooloo ma fa nekk yéen a fay nekkandoo lu mbooloo mi gën a bëri multiple bi gën a bëri

ba nopi min di dem di nafile ji mais aussi miinal sa bop ci des premiers jours yi da nga don fen nga bàyyi fen da nga don tok yor sa telephone ni legi jékki jek rek telephone bi sonne yaangi nek fi par exemple yaangi yarax siège en TV ñu wala telephone nga ni no may ni ci yoonu Grand Dakar bi ñew or lo Grand Dakar rek nga daal di eh, éliminer sa bop ci mëna fen bobu nga dindi ci sa bop déjà yaangi percer ci ay valeur yooyu inkilke sa bopp ci toujours ci di premier jour de beneen bi ci des mooy di julli ji ci waxtu juróom nga di ko julli ji ci jàkk ja loo nekk bu waxtu julli jotee rek nga dindi sa loxo dem julli ji beneen bi ci ëpp solo ci yi nga xam ne nit ki war na koo jël mu dellu si waat sant yàlla mooy lu yonent bi wax ne inni saa'imun si quelqu'un te provoque nga ne ko dama woor or dama wor bi du tax nga ni yàlla alak ko du tax nga ni mais dama wor duma répondre ben provocation jeuker wax ko digganteem ak jabaram jabar wax ko digganteem ak jeukeram dom wax ko digganteem ak papam dëkkandoo wax ko digganteem ak morom dëkkandoom apprenti wax ko digganteem ak chauffeur client wax ko diggante ak apprenti bu weeru koor jotee ñun ñi génn ci mbedd mi di dem di bis bu nekk dañuy seetaan cooki ndax naqari bi nit ñi am parce que dañu woor or koor googu nekkul ne da lay indi pour que nga naqari dara pour xool donc di premier jours yi nga jàng ci tolérance jàng ci dépassé mooy inni sa imun ku la wax rek yonent na nga ni ko dama woor sa musóor bu guddi bi dama woor sa taat yu rëy yi dama woor jeex na baatu dama woor boo ko soxoo ma soxoo ko benn policier du am benn dossier bu muy réglé donc léegi loolu benn la ci yenn la ci premier jour yi yoo war a comporté woo te loolu moo lay dimbale ba boo demee aji màkka comme ni ma ko waxoon ci série bële ci euh, épisode bële boo demee aji màkka ngay ñëw di wër kaaba gi kenn dëgg la da nga naan dama woor parce que apprenti nga nekkoon démb essage nga nekkoon léegi yaa ngi ci phase pratique bi da ngay daal di mën a wax dama woor kenn di xëccoog yow pour dugg nga duma xëccoog moom parce que dama woor ba toujours moo lay topp ba boo ñibbisee sa kër tamit toujours baat boobu moo lay topp donc loolu mooy euh, euh, nit ki noonu la war a comporté woo donc am miinanteeg alxuraan sant Yàlla après nga teg ci hidaaya mooy njub gi njub njub mooy boo dee liggéey weeru koor bi du tax nga baisser les bras woor rek oh nelaw dootoo signé benn dossier dootoo dem heure da ngay tardé tayel njub gi na nekk ci yow weeru koor bi yokk la li parce que saaba yi dañu doon woor xare badar mi ngi amoon di 17 ci mois de ramadan te màkka dafa tàng mais terewul ñoom dañoo wooroon dem di xare ji yow nga woor nag nekk sa bureau bien climatisé wala bien aéré te doo doo doo doo doo liggéey comme il faut kon day wane ni koor gi defoo ko ni ko war kon deuxième tomba sant yàlla bi ak njub gi bi ci des mooy nga am euh, euh, euh, ñeewant ci nit ñi am rëfa rëfa bi maanaam ngay gis ne man mi am naa ndogu tey mais am na ko amul ndogu moo indi marmite di kër yi nit ñi génnee li ñu am teg ko dimbali nit ñi pour ñu am lu ñu doge parce que am na koo xamante ni kii dafa woor mais amul lu mu doge am na ko amul lu mu xëddee am na koo xamante ni kii noonu lay continuer bu suba waat def wisaal fa bi ñëw nga ñëwaat encore yër yërmande feeñaat ci njëggal jéggalante bi jéggalante bi ku la amee loon bor nga ni dama war a yóbbu commune gendarmerie convocation nga ni déedéet du ma ko yóbbu gendarmerie maanaam 10 jours yi nga fexe ba entraîné ci loolu boo ko mokkalee nag loolu mooy nekk looy récité ci deux dixième jours yi na yaatu noonu mais mooy nekk deuxième deuxième dixième jour bi ba ci troisième dixième jour troisième dixième jour bi nag day am yeneen yu ci dolleeku xam nga lan moo ciy dolleeku mooy laylatul xadr daf cay feeñ troisième dernier dernier dixième jour bi euh, préparation korité daf cay feeñ euh, azaka muuru koor daf cay feeñ ci biir weeru koor bi am na jaamu yàlla yu nga xamante ni bii dañ doon génnee muuri koor mais aussi dañ doon génne azaka ci biir weeru koor bi ñu génnee azaka mu indi solidarité bi entre les musulmans donc weeru koor weeru teraanga la weeru yërmande la weeru suturaalante la li ñu soxla ci premier jour bi moom mooy continuer ba ci dernier jour bi ngay gën di yokk na ah mu mel ni nag jàngale bi leer na naññ nàññ naññ macha allah oustaz yal na yàlla yokk xam-xam bi yal na yàlla gën a leeral xel mi gën ko sellal yàlla tamit may ñu ñun ñi nga xamante ni ñooy seetaan yàlla may ñu dégg ak topp. chers internautes ñu ngi leen di jaajëfal yeen tamit yéen ñi saxoo euh, chaque fois rek di ñu seetaan di ñu suivre ci seen émission xam sa diine di leen joxaat rek dig daje ci euh, beneen émission incha allah.